loolu yëpp daal ñu ngi koy def pour jeunesse bi yooyu yëpp ñu ngi koy def pour femme yi moo tax euh, tamit buñ ñu xoolee loolu yëpp ak opportunité ak possibilité yi président Macky Sall indil ñu ne daal ñun président Macky Sall dañ koy lancer un appel solennel seen devant seen caméra yi ne que waa Mbour bëgg nañ en 2024 mu présenté wu pour un deuxième quinquennat comme ni ko ko loi bi ak conseil euh, loi constitutionnelle bi ak lépp autorisé. bëgg nañ mu continuer liggéey bu baax bi muy def si Sénégal si autoroute yi si port yi si aéroport yi si xëyu ndaw yi si jigéen ñi si financement bi si école yi ak université ba université Dakar tey nekk premier université bu Afrique francophone loolu muy liggéey si liggéey bu rafet ñun bëgg nañ mu continuer ko waat ko pour au moins cinq ans yii di ñëw bu ko defee Sénégal mën a àgg si fii ñëpp bëgg mu àgg fa muy nekk si dëkk yi gën a développé moo tax ñu ngi koy ñaan lillaahi wa rasuuli na bëgg parce que ñun bëgg nañ pour que 2024 mu présenté wu pour un deuxième quinquennat ñu ànd ñun ñëpp euh, ànd ak moom si euh, combat bi euh, fal ko au premier tour bu ko defee ñu ànd ak liggéey bi si mu gën a rafetee. lu lu yomb lu yomb baaxul mais nag bu dee wàllu wàllu loi ak conseil constitutionnel def naa opposition bi nga xam ne ñoom ngeen wax sax ku si nekk boo ko xoolee si ginnaaw tuuti defoon na si déclaration wax ne. amul benn loi wala benn conseil constitutionnel wala kenn koo xam ne nii eh, maanaam gëm nga sa bopp gëm nga sa borom koo xam ne mën nga taxaw ne président Macky Sall mënul amaat beneen beneen beneen quinquennat donc ñoom euh, à moins que euh, ñu ñuy wax rek parce que tout simplement xam nañ ne bu ñu demee 2024 président Macky Sall dina jàllaat au premier tour ñu bëgg jaxase xelu nit ñi rek pour mu bañ a présenté wu mais li wër te wër mooy euh, sur tous les plans juridiquement constitutionnellement ak politiquement le président Macky Sall peut se présenter en 2024 te ñun de euh, jeunesse su benn Bokk Yaakaar waa benn Bokk Yaakaar waa Sénégal même waa Afrique nga xam ne mu ngi leen di représenter dignement boo seetee G20 bi ak euh, COP 27 bi foo dem rek day taxawaay bu rafet bu mu fa am ñun bëgg nañ mu présenter en 2024 te ñu ngi koy ñaan mu accepter euh, métante boobu ñu ngi ñaan mu accepter appel boobu pour muñ mën a continuer ak ñun continuer ko waa Sénégal continuer waa Afrique pour que Afrique fu mu war a dem si développement mën fa àgg si nu mu gën a baax